sëriñ Afia Mbacke sëriñ Afia Mbacke mi ngi gane àdduna ci atum 1868 ci dëkk boobu di Poroxaan doomu Mamor Anta Sali Mbacke la ak kii di soxna Anta Njaay Mbacke sëriñ Afia Mbacke li tax mu gane àdduna ci dëkk boobu di Poroxaan bi Maba joxu wootee xare boobu mu amaloon ci som ci diggante coow lu mu amoon ak séeréer yi te tubaab bi duggoon ci mu waxoon ne képp koo xam ne nii daal nitug lislaam nga na nga ñëw xeexle ko ndax képp koo xam ne ñëw nga da nga jihaat ci la Mamor Anta Sali Mbàkke yóbbu woon ak njabootam ngir dem jàppale ko ca xeex ba ci diggante boobu mu def poroxaan nag ci la doomam jii di sëriñ Afiya Mbàkke ganee lii di àdduna mu tudde ko xaritam bu ñuy wax sëriñ Ahmadu Moxtaar Ñang sëriñ Ahmadu Moxtaar Ñang mii ci dëkk bu ñuy wax Afe la dëkkoon moom sëriñ Ahmadu Moxtaar Ñang mii moo moomoon dëkk boobu di Afe Afe googu mi ci suuf si di Jolof sëriñ Ahmadu Moxtaar Ñang moomu looloo yu bari sëriñ aafe lañ leen di woowee kon nag turandoom wii ko Mamor Anta Sali Mbàkke tudde di sëriñ aafiya Mbàkke sëriñ aafiya lañ koy woowe kon lii rek moo waral turu sëriñ aafiya wi waaye sëriñ Axmadu maxtar ñaŋ lañ ko tuddee boroom aafe moom sëriñ aafiya Mbàkke waajuram wu góor di Mamor Anta Sali ak waajuram wu jigéen wii di soxna Anta Njaay Mbàkke ñoo bokk maam maaram ndax kan Mamor Anta Sali Mbàkke doomu maam Balla Mbàkke la maam Balla doomu maam maaram soxna Anta Ndiaye Mbàkke doomu sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbàkke la sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbàkke mi doomu maam Maaram Mbàkke la kon kat ñoom ñépp ñoo bokk seen maam ja maam Maaram sëriñ Afiya Mbàkke am na nag ñu mu bokkal kii di soxna Anta Ndiaye Mbàkke moom sëriñ Afiya Mbàkke ñu ràññee ci taawu Mamor Anta Sali Mbàkke ba ñu ko doon wax sëriñ Mbàkke Anta Mbàkke am na keneen ku mu bokkal soxna Anta Ndiaye Mbàkke ñu ràññee ci ku ñuy wax maam Cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm soxna maam faati mbàkke anta ak soxna anta sali mbàkke anta ak moom sëriñ aafiya mbàkke kon ñett ñu góor lañ ak ñaar jigéen sëriñ aafiya mbàkke bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuróom wa di maam moor anta sali mbàkke moo ko jàngal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ ndaam abdurahmaan loo ci sëriñ ndaam abdurahmaan loo la nekk ba bind lii di kaamil bi ci fukki atam jàpp fukki atam ak benn ginnaaw bi nag jëlee nañ ko ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan loo kii di magam ja di mamoor moor jaara magi mag ngir mu saytu am njàngam ba xam wér na ndax kan mag ñi daanañ def suñu jàngee ba noppi seeti beneen boroomu xam-xam ngir mu toppaat seenum njàng ba xam def na nag ci diirum ñetti weer ci loxoy maam moor jaara magi mag ngir mu xool ba xam liñ ko jàngal wér na saa su ne nag maam jaara daana ko wax mu jàng kaamil bi ci guddi gi kon ci diirum ñetti weer guddi gu ne daana jàng kaamilub alxuraan ngir magi mag xool ji di sëriñ aafiya mbàkke doon jàng mokk na waaw wala déet noonee ko magam ji defe ci diirum ñetti weer nag ci la sëriñ aafiya xam ne daal lii di alxuraanul kari macha allah wala mammoor jaara ci la xamee ne rakam gii daal alxuraan jim doon jàng macha allah mu del siwaat ci loxoy waajuram mammoor anta sali mbàkke mammoor anta sali moo ko tàmbali waatal lii di njàngum xam-xamam sëriñ aafiya mbàkke wax ne ne laata mammoor anta sali mbàkke di génn àdduna jàngal na ko téere taalif ñu koy wax Muwaybul Xuddoos ci atum 1882 waajuróom wa di Maamor Anta Sali Mbàkke génn àdduna ñu denc ko ci déqale magam ja sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim sëriñ Aafiya nag des ci ay loxoom Seexul Xaddiim moo ko jox sëriñ Mbàkke Buso mu tëralal ko nag lii di xam-xam kon ci loxoy sëriñ Mbàkke Buso la mujjee jànge ginnaaw bu mu jógee ci sëriñ Mbàkke Buso nag ba del siwaat ci ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim moom sëriñ Aafiya Mbàkke wëraat lii di xam-xamam ba tax na fu masaa dégg boroom xam-xam dem na fa ngir seeti ko ngir kat la kooka am mu mën a am moom itam lu mu ca jëlee noonu ni la ko toppoo ba am bis mu dem ci benn ëttub alxuraan bu mag sax biir mii di Sénégal booba nag fekku fa kilifa ga fa nekk donga ya ñoom ñoo fa nekkoon bi sëriñ Aafiya Mbàkke ñëwee nag ca kaw lalu sëriñ ba la toog donga ya daal xalaat ci seen biir waaw kii mooy kan ba ñemee toog daal ci fi bi di toog ci lañ waxee ne nañ dem laaj ko dara ci xam-xam bu fekkee ne xamu ko nag toogaayam du fa yàgg ci lañ ñëwee ci sëriñ aafiya mbàkke kenn ku nekk sa soxla ci wàllu njàng lii di xam-xam ngir nga laaj ko ko waaye bisu keroog lu ko waaye laaj ca donga ya tontu na la ba mujj gi sax donga yooyu ñu mujj dajale defal lii di sëriñ bi ak ngan teral ko keroog bu fa fekkoon sëriñ bi loolee ko donga yi defaloon ci wàllu teraanga ngir bégguñ békki moom ngir xam-xam bu mu amee bu fa fekkoon sëriñ ba sax mën naa am naka donga ya terale sëriñ ba du ko mën a terale lii itam day wane na rek sëriñ Afiya Mbàkke xam xam wéroon na tey itam bari nañu ko seede ci réew mi ku seexul xaddim def imaam ci diirub li mu nekk gànnaar ca yéen jolof ba njaareem ña koo xam-xam te sëriñ Afiya Mbàkke moom la woon ci seexul xaddim di imaam mu wéy nag nekkub taalib bépp magam ja di ko liggéeyal di ko tarbiya di ko xoole nag seen waajur wa Mamor Anta Sali Mbàkke bari sëriñ Tubaa seexul xaddim jóge Mbàkke Kajoor ñëw ci dëkk bii di Mbàkke Bawal sanc na fi dëkk bii di daaru salaam ginnaaw daaru salaam nag sanc na dëkk bii di tuubaa ginnaaw tuubaa nag sëriñ aafiya mbàkke mi ngi ci ginnaaw magam ja sëriñ tuubaa seexul xaddiim ba ni fi sëriñ tuubaa seexul xaddiim bàyyi ko dem nag ci li ñu tuddee géej gi ci atum 1895 sëriñ aafiya mbàkke mi ngi ci ginnaaw magam ja maam cheikh anta mbàkke ci dëkk bii sëriñ tuubaa seexul xaddiim njëkk a sanc di daaru salaam foofu la nekk ba ni sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñibbisee ci géej gi ci atum 1902 sëriñ Mbàkke mi ngi woon foofu ci daaru salaam yoroon fa liri taalub alxuraan di jàng ak a jàngale ndax bari na kat bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi mag ñu bari wala doomu mag ñu bari sëriñ aafiya mbàkke mi moo leen doon jàngal ci daaru salaam kon bi sëriñ tubaa seexul xaddim nekkee ci géej gi moom mu nekk daaru salaam ci ginnaaw magam ja maam cheikh anta mbàkke jàng ak jàngale la doon def foofu ndax taalub alxuraan la fa yoroon ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci 1902 ci 1902 googu bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ñëw daaru salaam ci ngan gi boobu sëriñ Afiya Mbàkke mi ngi foofu ci ginnaaw magam ji mu wéy nag topp ci ginnaaw magam ji di ko liggéeyal di ko xoole seen waajur wa def ko ab sëriñ akub royukaay ba ni fi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bàyyi ko waate ci 1903 ci takk-takk bu mu amoon nag kii di mbaaxaan tubaab bi dugg ci ñëbbuwaat sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim gànnaar ci 1903 bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bàyyi ko ci dëkk boobu di daaru marnaan jaar njaareem jaar Tuubaa Tuul jaar Tiwaawan fanaan fa dem kel dugge fa saxaar wàcc lii di ndar seexul xaddim am na ndar ab diir foofu ci ndar géej bindoon na lettre nag ngir kii di sëriñ aafiya mbàkke fekk si ko foofu ci ndar géej fan yooyu seexul xaddim am foofu ci ndar nag bi fa sëriñ aafiya ñëwee ba mu fa waree gonte ngir war a dem nag lii di dagana jóge dagana nag pour dem gànnaar foofu nag ci ndar géej keroog ba mu fay jógee ci gaal googu mu duggoon kii di sëriñ aafiya mbàkke bokkoon na ci délégation bi ànd ak moom ngir dem foofu ci dagana gaal gi seexul xaddim duggoon war a dem dagana ban ni la talaata jooju ñii ñoo ànd ak seexul xaddim ci gaal googu di banni sëriñ afiya mbàkke mi rakkam sëriñ mamar penda ak ku ñuy wax sëriñ masàmba xari jóob ak sëriñ cheikh xari jóob sëriñ njoogu njaaye ak sëriñ ma xari ñang kon ñii ñoo àndoon ak seexul xaddim keroog ca gaal googu tudd banni ku ñuy wax sëriñ ma siise ndonga ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim la bisub kero sa wax na seexul xaddim ne ko teeg maa def ne sa takk ndeer daaru mar naan foofa laa la dël ndax léegi ma ñibbisi bisib kero sax la seexul xaddim di wax sëriñ ma siise ngóone ak mag ña fa nekkoon di leen wax ne képp koo xam ne nii de yaa ngi topp sama ndigal loo sori sori yaa ngi ci man képp koo xam ne nii nag li may digle defoo ko loo ma jege jege te xul nga jege ma seexul xaddim di yokku keroog ca wax ja di wax ne nekk ci sa bopp ak nekk ci man ak nekk ak man yemuñu pay ci misaal nekk ci sa bopp mooy koo xam ne ni da ngay mbubboo yoon wi te lu la neex def nekk ci moom nag mooy nga sori ko boole koog nag lu yoon wi digle nga def ko nekk ci wetam nag mooy saa bu ubbee buntam gis la saa buy yónnee yónni la te mu mel na nekkoo fi seexul xaddiim nee na ñett ñooñu yemuñu pay seexul xaddiim nag ne ku nekk ak sa bopp ñu balaak sa bopp benn nag nga góor góorlu ba def lu baax dem àjjana wa ilaa daal nga def safaan ñu yóbbu la ca geneen kër ga ku nekk ci man nag ma nekk ci moom yor ko àdduna ak allaaxira dëkkoo ko seexul xaddim ne dana ko ràmm sàmm ko xëy ko jafal jébbal ko njool màkka mu xëy dëkkoo ko képp koo xam ne ni yaa fi na ngir zaayir si ma jox la koom li te sama baatin seexul xaddim ne ko ma siisee kon dellul daaru mar naan toog xaar ma fa léegi ma ñibbisi keroog sax mag ñu bari daanu nañ foofa ci wax jooju seexul xaddim wax ma siisee ak mag ña fa nekkoon yelwaan ak nawet ba ca sës nag mu demoon ci dëkk bu ñuy wax xabbaan at moomu sax foofu la nawet ab dërëm la am ca lii de nawet ba dërëmub sëriñ ma siise ngóone boobu yóbbu na ko gànnaar ngir ziyaare ji ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim keroog bi mu ko yit seexul xaddim ca gànnaar la tombe woon ak maam cheikh ibrahima fall làmp baabul muridina yónni woon taalibeem bu ñuy wax sëriñ asan caam jox ko ab junni ngir mu yit ko seexul xaddim ca gànnaar kero bi sëriñ asan caam di indi junni ba di ko seexul xaddim la tombeek sëriñ ma siise ngóone indi dërëmam di ko jox seexul xaddiim seexul xaddiim sax diggante junni boobu ak dërëm boobu wax na ci ay wax keroog seexul xaddiim woolu na mag ñi nekkoon foofu ci gànnaar di leen wax ne dërëm bii ak junni bii de laa bëgg ngeen def ci seede boroom dërëm bii yéene woon na ab junni te dërëm bu ma waaye jox ma defal la ko junni wax ji nag lu tax ñu indil leen ko dañ leen doon wax rek ne kii di sëriñ Afiya Mbàkke dem na gànnaar ànd ak sëriñ Tuubaa seexul xaddiim te ndar lañ ànde dem histoire bi ci xewoon keroog nag bi a gonte lii di ndar géer ngir dem dagana na lii moo ca xewoon bëccëgug talaata googu loolu rek moo taxoon ñu indil leen lii di waxtaan wi sëriñ Afia ànd ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dem lii di dagana fan yim am dagana itam mook Seexul Xaddiim ña nga fa kon bi Seexul Xaddiim di jéggi dex gi di dem gànnaar mook sëriñ Afia Mbàkke ñoo fa nekkoon ci ba 1907 ñu ngi foofu ci gànnaar sëriñ Afia ànd ak magam ji baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ñu wéyal nag seenu nekkin foofu ci gànnaar ndax kat Seexul Xaddiim xamoon na ne sëriñ Afia la mu ñëw mu féetale ko ci diggante jàkka ja ak lii di njàngum alxuraan ma diiru juróomi at yi sëriñ tubaa seexul xaddim def gànnaar weeru koor wu jot sëriñ afiya mbàkke moo nekkoon imaamu naafile yi ci diirub juróomi at yi sëriñ tubaa seexul xaddim def foofu ci gànnaar wala bokkoon na ci imaam yi daa jiite naaf ci diirub juróomi at yi moom sëriñ afiya mbàkke gànnaar googu sax ci diirub mu fa doon jiite lii di weeru koor wi naar ya fa nekkoon ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim demoon nañ ba remarqué ne kii di sëriñ afiya mbàkke ni muy jànge lii di alxuraanul karim daal sell na te baat bi neex na macha allah am na bi sax bennum naar doon ko wax ne yow de lan moo tax nga topp ci ginnaaw kii daal di ko liggéeyal guddeeg bëccëg ak yow itam ni nga mokkale alxuraan ak boo jàng alxuraan ni mu neexee lan moo tax nga topp ci ginnaaw kii sëriñ afiya mbàkke di ko wax ne kii daal mooy sama lépp ndax moom mooy sama sëriñ lii ma man sax ci moom mii la jóge lii rek day wane ne naar yi ñu ko nawoon lañ ba tey foofu ci gànn naar am na naar bu mës a ñëw ci sëriñ tuuba seexul xaddim di ko wax ne sa jaam bii da laa bëggoon nga jaay ma ko ci misaal lépp loo xam ne nii daal ci wàllu xaalis la soo ma ko laajee ma jox la ko ngir ma jot ci sa jaam bi seexul xaddim di wax naar ba ne ko kii di sëriñ aafiya mbàkke du sama jaam sama rakk la lii itam jaar na faak seexul xaddim ci gànnaar wala itam ci naar yi nga xam ne nii sëriñ aafiya mbàkke ku leen yéemoon la wala sëriñ ko daa jànge yéeme moo tax itam su masaa di naaf naar yu bari daa nañ taamu fekke naaf ga ndax alxuraan ja gànnaar googu itam am na bis mag ña fa nekkoon ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim doon leen liggéey loo sëriñ aafiya mbàkke demoon bokk ca liggéey ba seexul xaddim di ko wax ne aafiya yow kat ci li ma la féetale mooy njàngum alxuraan mi ak wattu ko lii day wane rek seexul xaddim ku nawoon alxuraanu sëriñ aafiya mbàkke la sëriñ aafiya la ci réew mi léeg-léeg itam sëriñ tubaa seexul xaddim daana ko yónniwaat sénégal ci diirub li mu nekk gànnaar ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyikoo ci 1907 1907 googu sëriñ tubaa seexul xaddim jóge ne gànnaar ñëw ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam sëriñ aafiya mbàkke àndoon na fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu nekk ca yéen jolof di ko liggéeyal def ko sëriñ ak lii di royukaay ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyikoo ci atum 1912 1912 njaareem foofu pàqi sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem mu nekk faak sëriñ tubaa seexul xaddiim foofu ci njaareem njaareem googu itam lu bari xew na fa digganteem ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi sëriñ tubaa seexul xaddiim nekkee njaareem ci 1912 ci biir kër sëriñ tubaa seexul xaddiim googu la nekkoon ci kër gu mag ci njaareem ndax kat booba sëriñ tubaa seexul xaddiim gu ko lii di kër ba tax na sax kii di sëriñ aafiya mbàkke am na ñetti doom yu ganee àdduna ci biir kër googu di buqutul mubaaraka ñu ràññee ci sëriñ abdulakram mbàkke soxna saynabu mbàkke ak soxna faati mbàkke bi sëriñ aafiya mbàkke dëkkeek sëriñ tuuba seexul xaddim ci biir kër gu mag gi ñettam ñi foofu lañ ganee àdduna ginnaaw bi sëriñ tuuba seexul xaddim waxoon na kii di sëriñ aafiya mbàkke mu wut kër sëriñ aafiya mbàkke demoon ci quartier bu ñuy wax par yi mi ngi ci njaareem wut fa lii di kër waaye par yi ak kër gu mag dafa xawoon na sore tuuti bi sëriñ aafiya mbàkke nekkee ci quartier boobu di Paris bu ko seexul xaddim masaa soxla doomam ji di sëriñ moodu farmata mbàkke lay yónni ngir mu wool ko waajuróom doomam woowu sëriñ Moodu Farmata Mbàkke ko seexul xaddim masaa yónni buy dem day daw daw googu muy daw nag boole kook feebaru asma bi nga xam ni moom moo ko daaneel su masaa ñëw day sonn lool mag ñi nag demoon nañ ba eggee ko ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim di ko wax ne Moodu Farmata Mbàkke mii de soo ko yónnee ci sëriñ Aafiya day daw dem dikk te daw googu muy dawkat feebar bii ko dal di asma da koy sonal ci la seexul xaddim waxe kii di sëriñ Aafiya Mbàkke ñëwal pàcc boobu di Paris ñëwaat ci boqatul mubaaraka di kër gu mag seexul xadim jox ko fi jàkkaarlook moom kër googu sax moo nekk sëriñ Afiya ba nëga ni kon lii moo indiwaat wala lii moo jox kër googu sëriñ Afiya moom te jàkkaarloog seexul xadim kër ci kër gu mag ci njaareem mu sax foofu nag jege seexul xadim seexul xadim daana ko yónni lu bare a bari foofu ci njaareem moom sëriñ Afiya Mbàkke seexul xadim féetale woon na ko ci mag ñi buñ ci masaa bàyyikoo mu leen di taxawu sëriñ tubaa seexul xaddim def foofu ci njaareem lii di waxtu koor wi itam bokkoon na ci imaam yi daa jiite naaf moom sëriñ afiya mbàkke loolu itam bokk na ci cër bi mu amoon ci seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim itam daana def ci mag ñi képp koo xam ne ni génn nga àdduna sa ginnaaw sëriñ afiya mooy ki koy taxawu muy liñ tudde miraas loolu itam ab cëram la woon ci nekkinu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim boole ko mu di ko gu mag sëriñ aafiya nekk imaam bi kon ci loolu la sax ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim génnee àdduna nag ci atum 1927 ci fukki fan yaak juróom-ñeent ci mois de juillet moom itam mu wéyal ndigal loolu ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon toog njaareem googu ko seexul xaddim dëloon ba ni mu génnee àdduna moom itam ci 1941 li ko jëlee njaareem rek mooy feebar bu magam ja maam cheikh anta mbàkke tëddoon feebar ñu koy xamal ne fu mu jaar ñëw seet si magam ji ndax kat feebar bi mu tëdd yéem moo ko jële woon njaareem yóbbu ko daaru salaam naka te jóge googu mu jóge njaareem ñëw daaru salaam du delsiwaat njaareem daaru salaam googu lay mujj des sëriñ aafiya mbàkke sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon na ko ndigal ngir mu dem sanc itam lii di ay dëkk ci atu 1915 jox na ko ndigal mu dem sanc dëkk bu ñuy wax aafiya mbàkke mi ci wetu dëkk bii di jurbel ginnaaw aafiya mbàkke sëriñ aafiya mbàkke itam sancaatoon na beneen dëkk bu ñuy wax daaru raxmaan ginnaaw daaru raxmaan njukkeem ginnaaw njukkeem itam amoon na ay daara ci dëkk bii di ngin gi néew ak bay ti daqaar ak faneen ak faneen ci biir réew mi di bay di liggéey ak di tarbiya mbooloo ma nekk ginnaaw mi itam mu leen di jàngal la ko seexul xaddiim jàngaloon ba mu fi bàyyi ko ci atu 1941 sëriñ Afiya Mbàkke magam ja sëriñ Tuubaa seexul xaddiim mi ngi génn àdduna 19 juillet 1927 ñett laataa magam ja sëriñ tuuba seexul xaddim di génn lii di àdduna ci waxtaan wu sëriñ cheikh fat tàkk jóob amal sëriñ cheikh fat tàkk jóob ma ngi cay nettali ne sëriñ tuuba seexul xaddim moom bi mujjee wax ak moom ma ngi koy xamal ne kii di sëriñ aafiya mbàkke na wéy nag di jiite lii di jàkka ji ba ci weeru gàmm wa nakate ci weeru tamxarit woowu ci la seexul xaddim di génn àdduna kon ñaari fan ginnaaw bu seexul xaddim waxee wax jooju ci la seexul xaddim génn lii di àdduna la seexul xaddim mujjee jox ndigal moom sëriñ aafiya mbàkke ndax ndigal lim ko jox ñaari fan ginnaaw bi la ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ñibbisi ci tuuba seex mamadul mustapha mbàkke toog xalifa général des mourides sëriñ aafiya mbàkke ku taxawu woon kii di doomam ji la di seex mamadul mustapha mbàkke ba tax na sax lii di doom tudde na ko seex mamadul mustapha mbàkke ndax caatam mi fi nekk seex mamadul mustapha la ko tudde ngir jàppale ko sëriñ way kii di maam cheikh anta mbàkke ma ngi ko cay waxaale ne yéen a bokk seen waajur wa soxna anta njaay mbàkke ngir di ko ca tagg ci loolu mu nekkoon muy jàng ak jàngale boole koog nag di taxawu waxtu juróomi bi sëriñ afiya mbàkke nekkee njaareem ak ku baax ki sëriñ tuba seexul xaddim seexul xaddim mas na koo wax ne afiya yaag sa mag cheikh anta mbàkke de yow mii yaa koy njëkk génn lii di àdduna wax jooju nag sëriñ afiya mbàkke jàppoon na ko te takkoon na ko kon noonee ko ko seexul xaddim waxe ni la amee ndax kat sëriñ aafiya mbàkke bi maam cheikh anta mbàkke nekkee ci wéradi gi lañ ko woolu ci njaareem ndax boobu foofu la ko seexul xaddim dëloon di ko wax ne sa mag ja cheikh anta mbàkke de feebar bu metti tëral na ko te ngaa ñëw seet si ko bim ñëwee ba xool kii di magam ji maam cheikh anta mbàkke ci ni mu tëdd ci wàllu feebar ci la xamee ne daal nit kii daal wala nit su masaa toll ci bërëb bii daal pour mu jógaat di doxaat ay soxlaam dana nekk lu jafe te kat moom seexul xaddim ne ko aafiya ya kii di seex anta mi yaa koy njëkk a génn lii di àdduna te xam na ne moom bi mu ñëwee ba gis magam ji tëdd feebar magam ji jógaat du ko yomb te moom dara jotu ko ci wàllu feebar te ala kulli haalin la ko seexul xaddim waxoon moom du deñ day yàgg rekk waaye dana ñëw te mooy seex anta yaa koy njëkk génn lii di àdduna kon bi mu gisee magam ji di maam seex anta mbàkke te mu xam ne magam ji di maam seex anta mbàkke du jógaat ca la waxee ne moom da jaaxle na moom sëriñ afiya ndax xamaloon na ko ne afiya cheikh anta mii kat yaa koy teeru ci bàmmeel te moom mii di maam cheikh anta mbàkke mii de dara jotu ko te maam cheikh anta mbàkke nii mu ko gisee jugaat moom du nekk lu ko yomb ca ko sëriñ moor faati ture nekkoon ab jarbaatam di jarbaatu maam cheikh anta mbàkke ndax waajuru sëriñ moor faati ture kat ak maam cheikh anta mbàkke ak sëriñ afiya ñoo bokku soxna anta njaay mbàkke ci la ko xamale daal ne ko sëriñ bi kon tee ngaa batale ba fi sëriñ afiya ne moom de ci bi mu xàmmee ak léegi teggi maanaam musta tooñ moroomam te musta tooñ boroomam kon nag benn bàkkaar bu ko astaxfurlaa di fekkee musu koo def daa di dellu nag fañ ko dalaloon ci julli gam doon julli nag di waxtu tàkkusaan saan fala ko dogal ba fekk muy génnuk àddunaam sëriñ moor faati ture moomu nekkub jarbaatam moo ko xëcc ca jullikaay ba defar ko xadim rasul kàddoom du deñ sëriñ aafiya mbàkke mi ngi génn àdduna bisub talaata fanweeri fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum ci gàddaay gi ci dëkk bii magam ji moomoon di daaru salaam ci julli gu mu doon julli laataa muy sëlmal génn na lii di àdduna wala bi mu sëlmalee laataa muy jóg ca fa mu doon jullee génn na lii di àdduna sëriñ Afia Mbàkke ak magam ja maam Cheikh Anta Mbàkke ñi ngi rawantee ci mbindum sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci fanweer yi waxtu yu teg tuuti ndax sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci marsiya bi mu defal sëriñ Afia Mbàkke ci ginnaaw bu mu làqoo ma ngay wax ca biir marsiya ba ginnaaw bisub talaata ci tàkkusaan bu sëriñ aafiya mbàkke génn lii di àdduna ca alxemes ja ca fukki waxtu ca guddi la magam ja maam cheikh anta mbàkke génn àdduna ma ngay wax ca marsiya ba sëriñ aafiya mbàkke mi ngi génn àdduna fanweeri fan ci weeru tabaski magam ja maam cheikh anta mbàkke mi ngi génn àdduna itim ñaari fan ci weeru tamxarit bisub talaata bi sëriñ aafiya mbàkke génn lii di àdduna ak alxemes ji maam cheikh anta mbàkke génn àdduna ci mbindum sëriñ mohamadu lamin jóob daga na ci bi mu defal sëriñ aafiya Mbàkke mi ngi wax ne fanweeri waxtu lañu rawantee ndax kii talaata ci tàkkusaan la génn lii di àdduna maam Cheikh Anta Mbàkke mi magam alxamis ci guddi ci fukki waxtu ya la génn lii di àdduna soo defee lii di xayma bi nag bis la ak juróom benni waxtu lañu rawantee sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ma ngay wéy di wax ne bis boobu sëriñ Afia Mbàkke génn lii di àdduna magam ja maam Cheikh Anta Mbàkke moom itam yëgu ci dara ndax booba kat moom itam mi ci biir feebar bi kon ba nëgë ni xamul ne lii di àdduna rakkam jee ko njëkk a génn àdduna ñu teewlu marsiya bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana def ci sëriñ Afiya Mbacke bismillahi arrahmani arrahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi qaala ubaydu rabbihi muhammadun al amin Diop muarrixan li sheykhayni shaqiqayni saalihayn rahimallahu salafa wa baraka fi lxalaf imaamu jaamici almubarakati naam yowma thulaatha dahwatan daara salaam أمام طنفة وطوبة صافية مركزه أحمد شيخ العافية وعمره صيد لكل خير فلا يزل في منة وميره أما شقيقه الكبير العلم الشيخ أنت ذو المزايا العيلم فنام في ثانية الشهر الرئيس عاشرة الساعات ليلة الخميس wa umruhu waysun wa fi daari salaam maqdaduhu madfanuhu dayfa salaam wa baynama nawmayhima laamun sama ani min assaa'aati fiima rusima lam ya'lam الثاني بنوم الأول نعم يفر بأمره المهول فالله يرحم جميع من سلف منهم وبالتالي loolu mooy marché bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana defal kii di sëriñ Afia Mbàkke boole koog magam ja di maam Cheikh Anta Mbàkke ngir génn àdduna guñ génn àdduna ñoom ñaar ak seenu génn àdduna ni mu jegeente te ñoom ñaar ñu bokk wenn waajur wa di soxna Anta Njaay Mbàkke kon jëre jërëjëf sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana yow itam yàlla na la yàlla fay te yokk say leer ndax kat lu bari leer na ci yoon wi ngir yow sëriñ Afia Mbàkke mi ngi génn àdduna àdduna bisub talaata fanweeri fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1359 ci gàddaay gi talaata fanweeri fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1359 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 28 janvier 1941 mardi 28 janvier 1941 ci Touba Darou Salaam ci waxtu takkusaan wum doon julli ay atam tolloon ci juróom-ñaar fukki atam ak ñeent taawub maam Cheikh Anta ba sëriñ Moodu maam Maamun Mbàkke ak kii di taawu sëriñ Afiya Mbàkke ba di sëriñ Farmata Mbàkke ak sëriñ Moor Faati Ture mi jarbaatam xam ne nag seen nijaay ja ak seen waajur wa génn na lii di àdduna sëriñ Moodu Maamun Mbàkke moo wax ne nañ ko denc Daaru Salaam sëriñ Moodu Farmata Mbàkke ne ko Mbàkke Balla de yaay sama mag yaay sama kilifa waaye soo ma manee may ma wax la sama xalaat sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ne ko bisimila sëriñ Moodu Farmata Mbàkke di ko wax ne sëriñ bi de seetlu naa ne ci diirub li muy dund su masaa watu wala mu dagg lii di ay weewam day wax ne nañ ko ko dencal tuubaa mu jiitu ko fa fañ ko daa denc ci tuubaa nag mi ngi ci armeer yi sëriñ du maamul mbàkke di ko wax ne kon kay wax jëpp nag léegi wax nga ko kon kay sëriñ bi tuubaa la bëggoon ñu denc ko fa kon lii moo indi sëriñ aafiya mbàkke tuubaa waaye daaru salaam lañ ko naroon a njëkk a denc kon biñ ko dencee ba ñëw nag ay waxtu yu néew lañ ca teg magam maam cheikh génn àdduna sëriñ aafiya mbàkke mi doomu mamor anta sali mbàkke ak soxna anta njaay mbàkke dem kam tudde woon xaritam ba sëriñ axmadu maxtaar ñang boroom aafe dem ñu yëgal ko xalifab sëriñ tuuba seexul xaddim bi fi nekkoon di mu mamadul mustapha mbàkke mu wax ne nañ waajal kii di sëriñ aafiya mbàkke teñ indi ko ci dëkk bu sell boobu di tuuba cheikh mamadou mustapha keroog waxtu guddi lañ denc kii di sëriñ aafiya mbàkke lépp loo xam ni wàllu la ci diggante daaru salaam ba tuuba cheikh mamadul mustapha wut na ko ñu fàkkulu foofa ndax ñi mën indi sëriñ aafiya te yanu ko kat mën a ñëw ci dëkk bu sell bi di Tuubaa te duñ am benn jafe-jafe Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moo ko waajal gunge ko ba ci armeer yu mag yi mu wax rakkam ja Cheikh dul Faadal Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo ko jullee ñu denc ko ci armeer yu mag yi mu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke seede lu am solo ci waajuram wow di sëriñ aafiya Mbàkke imaam sëriñ aafiya Mbàkke itam bëggoon Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke la sax tudde na ko ko ndax jaatum sëriñ Afiya Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke lañ ko tudde sëriñ Afiya Mbàkke ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum 1941 ba atum 1957 sëriñ Moodu Farmata Mbàkke mooy ki ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Afiya Mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ Xaasim Mbàkke moo toog ci atum 1957 ba 1983 ñetteelu xalifa sëriñ Afiya Mbàkke mooy sëriñ Abdul Lakram Mbàkke moo toog ci 1983 ba 1996 ñeenteelu xalifa sëriñ Afia Mbàkke mooy sëriñ Gede Mbàkke moo toog xalifa sëriñ Afia Mbàkke ci atu 1996 ba 2013 juróomeelu xalifa sëriñ Afia Mbàkke mooy sëriñ Mohammadu Abdullahi Mbàkke moo toog 2013 ba nëgëni ñu ngi ñaan suñu boroom guddal aw fanam ak mbooleem doomu sëriñ Afia Mbàkke yi fi des moo xam góor ak jigéen ak mbooleem sëti sëriñ Afia Mbàkke yi ñu ngi leen di ñaanal suñ boroom guddal guddal seenu fan te yokk seen wér gi yaram ci seen dara darajay maam ja sëriñ aafiya ak seen waajur wa sëriñ aafiya mbàkke amoon na nag bis buñ ko daa fàttaliku ci li ñu tudde ak màggal màggal nañ ko ay at yu xaw a takku waaye nag ginnaaw gi itam njaboot gi ba nañ ko yamale ko léegi rek ci wàcceem kaamil ngir di fàttaliku seen waajur wa sëriñ aafiya mbàkke lii di màggalug daaru salaam gi itam danañ ko ci fàttaliku waale moom magam ja maam cheikh anta mbàkke ak ngërëm ñoo bokk soxna anta njaay mbàkke imaamu sëriñ tuuba seexul xaddiim ba doomu mamor anta sali mbàkke ja rakku maam cheikh anta mbàkke ja ka ñu tudde woon sëriñ ahmadu maxtaar ñang boroom aafe yàlla na ko yàlla fay te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem jafe-jafe réew mi yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara jëy